ñoo doon manifester ngir ñaawlu ni nguur gi di doxalee réew mi ci wàllu koom rawatina lu ñu mel xewoon ginnaaw dévaluation CFA boobale xew-xew nag euh, la ca mujjoon a am mooy juróom benn takk der di ay policier ñoo ci ñàkkoon seen bakkan ginnaaw loola ñu teg ay euh, ñu teg loxo ay moustarchidine euh, lu ni mel nag la ñuy waxtaanee boobale xew-xew kon dalal ci brigadier chef des gardiens de la paix à la retraite jiite itam mouvement national des policiers à la retraite na Keita ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la ci Demb ak Tay maa ngi leen di dal nuyu soxna si. di jaajëfal seen rajo bi aussi waaw. jërëjëf alors dinañu ci njàmbaas itam euh, li nga xam ne mooy défiance maanaam nit ñi ni ñu ñemee tey takk der yi ndax euh, am na fu mu tàmbalee waaye mi ngi rogalaat ba léegi ci Sénégal waaye euh, ni ma ko waxee sëñ bi Keita dañuy dellusiwaat ci xew xew 16 février 1994 keroog lan moo xewoon. waaw jërëjëf fàttaliku bu am solo la parce que bu ñu ñàkkee ñaar jageñaayoo ñoo xam ne bokkoon métier bi euh, fàttaliku leen ne génn nañu àdduna génn àdduna bu metti danañ jaajëfal rajo bi 16 février 94 nag bu ren mooy ñaar fukki at ak juróom-ñaar bi événement bi amee ba léegi waaw 27 ans li ci gën a métti mooy euh, fàttaliku dafa amul benn yoon ci nguur yi fi jaar yëpp bi ni Abdou Diouf demee Abdoulaye Wade ñëw ba Macky Sall tey tey ma jël initiative tey jii fàttaliku ko wax ci parce que dafa dafa mel ni ñun daal bokkuñu Sénégal wala alkaati yi daal lañ fi nekk rek ñoom bu leen de rek yëpp dafa kenn so euh, dañ ko soxantal te ñu ngi leen di taqal ci lu ne bon lan moo ko indi Ablaye Wade d'abord avant muy def meeting bi dafa am déclaration bu bu garaaw bu mu def. Hmm. parce que dafa ni alkaati yi ay nit lañu comme yéen bu leen leen ragal bu leen songee songu leen bu leen dóor leen dóor leen wut leen sax ay euh, ceenu welu bu ngeen mënee ngeen dooleel déclaration boo xam ne moo déclenché lépp mm. le 16 février 94 moom muy organisé benn meeting à l'arrêt du centenaire ñu baptisé ko tey boulevard général de Gaulle. Mm. alors lan moo fa xew. alkaat yi ñu désigné leen pour ñu maintenir loolu. parce que il faut ñu manifestation bi autorisé woon nañ ko ñu signalé loolu. waaw autorisé woon nañ ko mais alkaat yi dem pour maintenir loolu il faut que nit ñi. xam maintenir encadré marche bi waaw. Euh, manifestation bi voilà maintenir ak rétablir. il faut que nit ñi xam parce que bu fekkee ni dafa troublé wu ñuy xeex ñu yoon kooku bu alkaati ñëwee takk der yi dañuy fexe ba jàmm ñëwaat. Mhm. mais bi yoon na jàmm moo fa amoon tribune yi takk nañ ko nit ñaa ngi dox tranquillement ñëw di toog di installé wu pour déglu seen leader. Mhm. ah lan moo fi xew euh, renseignement yi nag dama lay wax au départ ne yëgoon nañ ko. yëgoon nañ ne. am na luy waaj lu ñuy waajal loo xam ni. Euh, te ci takk der yi lañ ko jëmale. Hmm. te loolu yëpp ñu ngi ko def li ñu ko defee moo di gaf ki fi nekkoon ministre de l'intérieur di Djiboka ci seen biir dafa am ñoo xam dañ ko doon xeex. dañ ko doon xeex pour vraiment mu gën a euh, Abdou Abdou bañ ko jox benn confiance. Hmm. moo tax ñu def loolu euh, teg piège boobu. manifestant yi ñu ngi déparé caaro yi gaañ nañ fa ay alkaati mën naa ci lim Alioune Diallo génn àddina yàlla yàlla yërëm. Hmm. ak laax ba ñu yegsee ci àll du centenaire ñëwuñu rek ne bëret dem de dañoo dugg ci ful yi parce que dispositif defoon nañ ko ci koñ koñ koñaan yi yëpp mhm. pour di fa di di di séntu lu ma war a ñëw mhm. ak loo xam ne ñëw pour yàq ñoom bu ñu diggee ci nit ñi ba yegg si ba ci kaar bi nga xam ne moo yor réserve yi ñu jël benn pneu taal ko ci suufu kaar bi ba mu commencé di tàkk nag ci la alkaati yi woon ci biir tiit nag daw di génn bi ñuy génn ñoom fekk na ñu pare ñoom yore seen i jaas ak seen i hmm? génn rek ñu daal di jàpp jàpp tëll rendi Hmm? du ko def ba juróom benn ñu si des ñu blessé leen ki ci gën a fay ci blessé mooy Babacar Ndiaye la capitaine Babacar Ndiaye dañoo dagg ñaari loxo yi bënn benn bët waaw loolu mooy li am nga xam ni vraiment rafetuwul lu ko ñaawluñ ko ah ba loolu amee mais lan moo ci topp soxna si dem kan Abdou Ba Diassé def seen cercueil muur ci drapeau Sénégal def leen décoration médaille d'or de la police famille bu ne ñu yëkkati un million jox la fàtte nañ leen xamatuñ ndax existe nañu xamatu ndax nekkaat nañu wala déedéet mais loolu mooy lan tey ci ñaar fukk ak juróom-ñaar ñooñu ñàkk seen bakkan te newoon fii di aar doomu aadama yi jël jël boo xam ne façon risque bu ne jël nañ ko pour que nit ñooñu di di di nekk ci jàmm man di dem ci seen soxla di ko dox di dox loo xam ne yëpp ñu ngi koy def jël risque yooyu tey ñu toog ba ñoom état bi ci boppam fàtte leen toppatoo leen xamatul leen ci li ma ci gën a marqué man. moo di euh, ci juróom-benn yi am na kenn koo xam ne du ko fàtte bi ilaa yawmi diini parce que ma ne woon sama commandant du corps bi ñu nekk bi caar yi doogu bi mu l'adjudant Moustapha Dieng mm-hmm. kooku du ko fàtte dañ ko fa jëlee affecté ko gémi événement bi am ci la ñàkk bakkanam te it ak man en tant que président du mouvement national li ñu war loolu yëpp def nañ ko wàccee nañ kaamir ñaan nañ leen yàlla def nañ li ñu war yëpp ay informé nañ aussi autorités yi dafa ñu jóguñu rek def ko déedéet bind nañu ay correspondance xamal ko le ministre de xamal ko le directeur régional la police nationale am na ñu yéen def lii di leen sant ne dañu bëgg at mu ne nañu def benn cérémonie à l'école de police pour fàttaliku ñooñu seen génn àddina vraiment loolu mooy ware njaboot gin fi bàyyi ba ñuy dem muy ay xale yu tuuti te ay majeur lañu ak seen i soxna ñu xam ne ñun kat ñoom fa ñu bokkoon la ñu koor ba ñu tànnoon fàttewul leen parce que noppi bi mooy dana la fàtte. Mm-hmm. beneen bi moo di mais justice la ñu bëgg mu am mais nan la ñu mën a jàppee ay nit ñu identifier leen mm-hmm. interpeller leen yóbbu leen garder leen dugal defeere leen. ñu dem defum fa quelque temps ak moins d'un mois ñu libéré ñëpp. waaw foofu laa doon a ñëw est-ce que procès amoon na ba ñu ndax ginnaaw loolu am na ñu ñu teg loxo mooy euh, ñu ñu ne ci Moustarchidine la ñu bokk mais fan la mujjee loolu. mani fenn la mujjeewul fenn la mujjeewul lu dul ne yóbbu nañ leen génn nañ leen dem nañ seen yoon. ci ban motif lañ leen génnewee. nga ni ci ban motif lañ leen génnewee. mais ci ban motif lañ leen génnee moo di <laughs> alors ñoom lañ doon waajal def nañ ko la ñu bëggoon am nañ ko. et que alkaati yi amuñu ndey amuñu bàyyi. non ñi ñu jàppoon est-ce que véritablement ñoom ñoo def yëf yi. mais ñoo ko def parce que da leen mais boo ñëwee ci kanamu oto oto bu yore réserve policier nga jël parce que mënoo ubbi jël pneu taal ko ci suuf oto bi taxaw ak say jaas ak say paaka jàkkaarloog ñoom ku génn nga tër rendi mais quand jàpp na loola loola fan la xewee exactement mbir mooma fan la xewee exactement. mu ngi xewee allée du centenaire. moom la ñu baptisé tey boulevard général de Gaulle. xanaa ay nit newuñu fa woon ba ñuy def loola. mais ay nit a nga woon bu fa ay nit nekkee lan la tooy booy yi moo am ba loola amee ñëpp daw dem ñii ñii di ja yëpp jaxasoo. ba ca Gundar Kam bëccëgu ndar kam lépp jaxasoo lépp ñi daw ñu gaañ ci alkaati yi ñu juróom-benn yi moom tël rend lañ def hmm? kenn rek moo ci xam ni moom dem nañ ba hôpital principal mu doog ñàkk na muy lieutenant Mamadou Diop te dee gi ne rey gi ne rey moo fi gën a metti parce que booy rey sa xarum tabaski da nga koy rey ba pare jàpp ko pour que métti bi bañ a metti mais moom hmm. dañ lay rey bàyyi noonu dagg tuuti rek bàyyi la noonu ngay souffrir ba ngay jën àddina hmm? noonu la leen noonu la leen rey rey gu méttee métti te tey jii tey Sénégal lu fi xaw alkaati bi bu toogee bu jàppee agresseur bi sax xaw koo xuri tuuti ñu ne pour li tax alkaati bi xuri ko. te bu ñu reyee te bu ñu reyee alkaati bi ñu ne c'est pas un problème. je te donne un exemple patent 23 juin saa yu ñëwee bu ñu koy célébrer di ko ko fàttaliku 2011 Mamadou Diop rek la ñu wax waa gaañu na dee na alkaati ñoo ko rey. ñu fàtte Fodé njaay bi nga xam ne yoroon na fetalam bi ko dàqee mu daw dugg ci kër ne dimbali leen dañ bëgg a rey ñooñu jàppaat ko delloo ko ñooñu tëral ko toj ba beeg moom. kenn du ko wax loolu pour lan mais kon boog tey ji Sénégal dañu war a dellu si raison yi. d'accord léegi ñu ñëwaat ci ña ñu oh. jàppoon. lan moo tax ah. dëgg-dëgg ñu bañ leen di bàyyi ban motif la ñu joxe dañ ne ñoom defuñu ko wala dut moo tax ñu bàyyi leen yëf yi leerul wala lan est-ce que oh. reconnaître woon nañ ne ñoom ñoo ko def ak bañ leen di bàyyi lan lan a tax ñu bàyyi leen. mani. Hmm. buñ waxee ba tudd ne ne tey les moustachidines ñoo commettre forfaiture boobu. Hmm. lan moo doon doon les moustachidines à lan mooy doon seen tool ak ci lan dañ nekkoon. waaw lan la nekkoon seen taxawaay. Ah, waaw seen taxawaay lan mooy waaw waaw lan mooy seen tool lan mooy seen taxawaay. Mm. àndoon nañ ak Ablaye Wade. Mm. nekkoon nag moom ji bu tey bu loolu amee ñun leen ñoom la. Mm. waa ñoo def loolu. parce que ñoom la ñu identifié ne ñoom ñoo ko def parce que ñoo ko ñoom seen bopp ñoo ko ñoo ko doon def ñoo ko revendiqué. waaw néew ñu dañ leen ko sant de ne seen njiitu Moussa moo leen ko sant déedéet mais ñoom ñoo revendiqué ne ci foofu lañ bokk. waaw ku revendiqué nag ne foofu nga bokk def loolu mais bu ñu la foofu la la mën a yóbbu. Mhm. trois trois cent plus de trois cent jàpp ko mais attiwuñ ci kenn mënewuñ benn enquête sinon interpellation dugal génne mais loolu rek la fi am loolu dafa war a dëkk ci dëkk bi alkaati bi bu defee loolu yoon ñu jàpp ko def ci kaso bi. mais de donc bu ko defee lu dul yoon aussi ña ko def nañ leen jàpp def ci kaso bi parce que tey jii tey néew ma ma sàmm néew ma dem ndax ña ko def ña ngay dund dunduñu waaye nañu xam ne képp koo xam ne yaa ngi defoon nga ko te def nga jël nga tëral nga rendi nga booy dund na nga teg sa bopp ne yàgg yàgg da nga dugg buur suuf da nga wax yàlla c'est clair net et ko amul ko wax bu fekkee aussi am na koo xam ne da leen ko santoon muy dund dundul yëpp su dee na wax yàlla parce que ba jël bakkan kenn rek moo ko jagloo def fa kenn du ko laaj dara muy subhaanahu wa taala yàlla donc doomu aadama ni yow defu la waxu la ñëwul pour def politique deful dara pour aar la yow ba nga xam ne doo am benn fagaagal nga tey am euh, xolu génne ko ngir da ngay xeex kan ngay xeex. parce que dañ ko monté un tout dañu monté affaire bi kan la doon xeex jiboka mais bu ñu xeex jiboka à a yàlla na ko yàlla yërëm ko àjjana mais nañ ko xeex mais xeex ko jëmale ko parce que moo doon ministre de l'intérieur ni ñu koy xeexee mooy nañu rey alkaati yi nga xam ne moom seen seen ordre lay demee moom lay woyee ci lañ koy waxee la preuve mooy mu wax la ni pour ñoom noonu la à l'époque jiboka avant ñu koy relever mais benn manifestation Moustachidine nanguwuñ ko woon dañ ko te interdire ñëpp xam nañ loolu Ah, kon yéen daal da ngeen jàpp ne bëggoon liquider euh, de Ka moo tax ñu autoriser manifestation bi moo tax itam enquête amul ba ay xëy na daan yi war ñu teg ko ci ñi def ñaawteef boobu mais dama la wax carrément ne loolu ab dañu yàpp du question jàpp les renseignements les renseignements prévoiroon nañu ne am na lu ñuy waajal fu muy jógee ak ña koy def xamuñu mais jël nañ dispositif yëpp mais mbetteel nag fu muy am day am xam nañu aussi ne jëboka taxoon ñuy def loolu parce que seen biir guerre moo amoon am na jege ay jegeñaay woon Abdou Diouf loon ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam dañu bëggoon jël toog gën a jege yore place ba te jiboo demoon amoon na jël place boo xam ne ci Abdou Diouf ñëpp xamoon nañ ko mais nag il fallait que ñu monter piège boobu pour que vraiment ñu écarté ko lu fa mujjee bu affaire bi amee après moom lu mujjee dañ ko génne dàq ko mu dem ci la créer le son parti génn parti parti donc aujourd'hui li ñuy wax moom c'est patent donc tey lii am ba am moo di ñun li ñu gën a soxal daal moo di état bi nay fàttaliku ko ñooñu ay alkaati lañu woon génn nañu àddina te ni ñu génnee àddina métti na lool lool te defuñu waxuñu dañu newoon foofu pour aar doomu aadama yi pour que bu ñu am dala ñëw seeti seen meeting bu ñu defee pare ñu ñibbi ci jàmm noonu lañ doon indi mais pour leen pour pourquoi ñu jàpp leen tey def leen def def ju ñaaw jooju ba pare wëlbatiku vingt sept ans après ñu leen de fàttaleel leen fàttali musuñu leen fàttaliku musuñu toog ba xalaat leen soo gisee tey eh, may rendre les plus grands hommages à à l' acte décret général la police nationale Ousmane Sy le général Ousmane eh, bi muy jël euh, bi ñu ko nommé bi mu yegsee dans son discours d' introduction da wax carrément ne at mu jot na leen fàttaliku ñooñu. la mu ko wax na mu ko waxee mm. loolu sedd na xolu doomu adama parce que donc lu newoon ci xolam la ci yéene bi am na parce que yéene rek ma am solo mm-hmm. donc ci loolu ñu ko ci sant di ko ci gërëm parce que c'est important mm. li ñu bëgg encore mooy wax nañ ko le ministre de l'intérieur Antoine ab Abdoulaye Diome moom Ousmane si moom ba ci président de la République dama ni ñu fexe ba identifier xam ñooñu famille yooyu fu ñu nekk ak fa ñu nekk actuellement mu ñu recevoir leen waxtaan na ñoom mais c'est important. Mm. c'est comme sur le bateau le Joola. Mm. loolu la tey njaboot gi ñu ngi leen di kii barki dem moo Ndiaye dégg nañ conseil des ministres de discussion bi mu jël ne orphelins yi yi nga xam ni bu au moment du naufrage ils étaient des majeurs ñu fàtte leen au temps de Diouf Abdoulaye Wade ne duñ leen jox dara. Mm. te jox remettre na leen dans le droit donc ñun ngi laaj loolu ñu recevoir leen waxtaan ak ñoom beneen bi mooy. autorité bi na jël ay camp wala poste de police wala ay commissariat tuddee leen ko pour ñu bañ a la waaw loolu aussi vraiment lu ñuy demander la lu ñu sakku la pour que c'est des martyrs tey Abdou Diassé lan moo ko génnoon àddina ñu tuddee ko kan Abdou Diassé renseignement la wuti woon Kolda renseignement la nekkoon di dem ci biir frontière ba yéeg ci kaw miin yàlla jël bakkanam donc tuddee nañ ko Sékou Mbalou c'est la même chose ci ci service d'ordre la génne donc tey jii ñii nga xam ne aussi dañu demoon def service euh, demuñu pour yàqal kenn demuñu pour dóor kenn mais yàlla jël seen bakkan ci nii ñu ko jëlee ñu rey leen froidement ren di no koy nu leen fàttaliku ci loolu. Mm. nit ñi xam ni ñii kat léegi lii waaye tax ñu jëlee àdduna. d' accord bi ñu fàttee ñooñoo. seen collègue policier yi muy yéen ñi ma njoxtu ne boobu yaa ngi en fonction naka ngeen ko dundee est ce que nekkul woon loo xam ni juróon na peut être tiitaange si ñenn ñi sax pour dem def seen liggéey du maintien et rétablir l' ordre. mais jot na tiitaange parce que dama wax ni temps boobu euh, commissariat Thiaré bi ñu ubbi le 5 septembre 1990 ma jógee ñu affecté ma fa. Euh, commissaire boo xam ne woon Mame Birame Sène tànn ma zone bi nga xam ne moo gënoon a métti ci Guédiawaye muy marché bu bees nga xam ni chaque année chaque jour chaque semaine am na crime njóobu ma fa détaché ma fa. mës naa la faa fekk waaw foofu la ma fekk ñu ñëw informé ma ci saase ne ma ah dégg nga li xew allée du chantier man déedéet ah attaqué nañu alkaati yi ba rey nañ ci juróom benn looy def nag ma ne ah ma de du ma tax a daw naa jël samay disposition waajal ko wax vraiment du ma daw parce que aar moo fi indi ñëw ma fi pour sama bopp ngeen laa ñëw pour aar leen donc xamul nu muy demee boobu ndekete ñoom jaar nañu caaro yi ba def la ñuy def ba continuer ba année du centenaire donc. tiitaange ah kon ñi def loolu nekkul woon ca manifestation ba lañ nekkoon feneen lañ jóge ñëw. waaw feneen lañ jóge ñëw. dañuy dugg dëggoo ma ni dañoo ñëw bu ñu caaro yi la ñuy. lañ jaar wax naa la ko lañ jaaree fan xaw fu ñu jógee foofu lañ jaar. ban fa jaaree gaañ fa ñaari alkaat yooyu laa mën a laax. ak Alioune Diallo Alioune Diallo génn àdduna. Mm-hmm. gaañ nañ leen continuer ba ñu continuer dem dama la ni disposition yëpp jëloon nañ ko mais ba ñu yeggee allée du centenaire dugguñu rek attaqué dañu dugg ci ful bi. waaw ba nga xam ni. rax rax ci nit ñi waaw rax ba dugg ba ñu duggee ba ba yegg ci eh, auto réserve bi taal pëne ci suuf nag bañ ko taalee ñoo ñu tiit daw di génn ci leneen jaay ku ci jàpp di di dëral di rendi alors nag ña ña rëcc am blessé lañu déggoo daal capitaine Babacar Ndiaye ñaari loxo yi lañu bënd bët bi Djibo Ka moo ko évacué France ñu monteel ko ay loxo kon lu leer laa la wax donc tey jii tey loolu am na naka def nag dañ ñi ñun duñ yàlla duñu yonent bi doomu aadama lañ comme ñëpp mais nañu xam ne rey nañu ay nit ñoo xam ne ñëw ñu foon pour xeex ak ñoom dañu ñëwoon pour aar leen tey ñu jël leen jël lañu mer sant keneen ñeneen ko sant ba ñuy dund dunduñu nañu xam dañu wax a yàlla ña ko defit nañu def seen bopp ni fa ñu toog nañuy xalaat toujours ne bu nu dund bu dee yàgg yàgg gis ak yow ak yàlla. loolu leer na parce waaw loolu leer mm-hmm. na. kon kon yow bañ la koy yëgal ah. ca marché bu bees yow. Ah. defoon nga ci sa bopp ne xëy na gaa yi mën na ñoo ñëw dal sa kaw. bien sûr ah, euh, en matière de de de, de sécurité da ngay prévoir. Mhm. da ngay prévoir saa yoo monté bu loolu amul da ngay yaakaar ni nit dana la mere. Mhm. ñëw ci yow def la loo xam ne yow doo ko foog donc dangay ngay jël say disposition bañ ma ko waxee aussi taxul ma replier taxul ma dem. Mhm. parce que bu boobaa day mel ni gëmatuma yàlla xamatuma ne yàlla mooy buur. xamatuma aussi ne damay def métier boo xam ni métier bu aar doomu aadama yi la te yàlla moom ay aar. donc ci loolu aussi ma toog jël samay disposition yëpp ci après nag vraiment ba sama heure wàcc jot wàcc dem dem sama kër le lendemain nag laa lañ ma wax histoire bi nu mu demee ma wax déglu ci ainsi de dem bu ma demee commissariat ñu wax ne diw ak diw gaañu nañ ci foofu leen jaat gaañ nañ leen donc man je suis un acteur patent parce que commissariat euh, bu géej euh, bu bu caaro yaa mhm. parce que ñoo ko ubbi le 5 septembre 1992. ñu détaché la marché bu bees. maa ngi wax ne sànq mës naa la fa fekk parenthèse rek mës naa fa ñëw enregistré ak yow. ca digg marché ba waaye wax dëgg yàlla euh, delloo nañ la njukkal ndax foo romb. Hmm. gis naa ni ñu lay nuyoo ak ni ñu lay tatagalee. bref est-ce que jamono boobu tamit amoon na benn dispositif wala ay matukaay yoo xam ne yu ñu jël la ngir aar policiers yi moo xam ci commissariat yi la wala feneen ak leneen par rapport ak événement yi amoon. waaw loolu am na dama lay wax tey jii wax euh, dingatuma yeneen ñi ministre yi de mais dama ni euh, man de bi ma duggee police maa ngi dugg police le premier mars 1972 sixième promotion de la police la mais ministère yu bëri jaar nañ gis naan leen mais budul le maire il fait partie des meilleurs ministres de muy Djibo Leyti Ka yal na ko yàlla yërëm te jéggal ko xare xare ko àjjana. waaw loolu lu woon la joxoon nañu doole joxoon nañu kàttan joxoon nañu loo xam daf ñu doon aar ci lépp disposition yëpp jëloon na ko parce que dee newoon naa la bi affaire bi amee moom ci waxam il a pris l'initiative par arrêté mu interdire toutes les manifestations des moustachidines wal moustachidaat mmh. waaw loolu am na jox ñu toutes les dispositions donc tey ji tey moo di nit ki nag boo demee bay defi service d'ordre parce que dañ métier à risque alkaati la boo demee bay jël sa kii bi liggéey war ngaa jël sa disposition yëpp pour euh, seet ni Euh, doomu aadama bi mën na jóge fu ne def la loo xam ni mën nga ci ñàkk sa bakkan wala nga ñàkk ci ay cër donc euh, aar ñu ngi doon aar suñu bopp di aaru ci yàlla di gëm ne yàlla moo ñu moo ñu moo ñu aar doyloo ko ci lépp it def suñu liggéey parce que loolu mooy suñu métier pour que Sénégal développé pour que nit ñi mën a dem seen dem dox seen sox seen itte dem seen liggéey dem jàkka yi dem dem ci jumaa yi dem ci église yi dem fépp nga xam ne ci jàmm la ñuy nekk parce que dama wax tey tey bëpp bu ne dëkk bu ne laax ci àdduna du dawale ko mukk sànq amul sécurité sécurité bu ñu ko waxee alkaati yee tax donc par conséquent euh, gërëm sant leen moo warloog loolu ba nga xam ne ñun tuuti ñu woon dara dañu gëmoon ne métier bi ñuy def métier bu baax la te ñu ci te dañ ko doon def ngir citoyens yi nga xam dañoo honnête newuñ pour faagaagal wala ko def lu bon. Mhm. est-ce que euh, justement amoon na tamit euh, ay ñaawlu yoo xam ne jóge woon na ci citoyens yooyu ngay wax euh, sénégalais yi de manière générale jëm ci xew-xew bi wala dañ ni woon tekk. Euh, non non non ñaawlu ñaawlu ñaawlu nañ ko ñëpp très mhm. franchement il le dire que di ñaawlu nañ ko parce que jëf ju ñaaw la woon ñëpp métti luñ nañ ko ñaawlu nañ ko eh, parce que jël bakkanu doomu aadama ci te defu la waxu la xeexu la yow. nga fekk ko fa mu toog parce que li doon mooy réserve la ñu wax parce que bu ñu demee ci encadrement yu mel noonu dañuy def dispositif ko ñoo tooñ ñu teg fa benn alkaati wala ñaar pour ñuy xool pour ñu aar nit ñi mm-hmm. réserve nag toog fa mu toog pour di xaar ndi ëllëg bu dara yëngatoo ñu mën a génn dimbali seen ñoon ñi nekk ci mbedd mi ñu teg mm-hmm. réserve boobu fa ñu toog ñoom ku ñu xeexal kenn. mais toog di de kenn ñu fekk leen fa lakk ba ñu suuf pour tiital leen parce que daf la. Mhm. ba ñu ba ñu commencé oto bi commencé takk ci lu ubbi di daw ñuy kar benn benn di tëral di rendi kooku kay lu doy waar la. kon tey jii tey lan la lu ñu def ak lan ñu def la kan la lu mere ak kan tax ñu def loolu ak kaneen ko sant donc tey damay wax haut et ne ki leen ko sant ak ku monte ko bi ak la tax ñu def ko ak ku nuy xeex. ak képp koo xam ne wax na ci wala jëf nga ci pour que yooyu am billahi wallahi taalahi da nga génn àddina boo demee da nga wax yàlla mhm. parce que ñooñu defuñu kenn dara dañ doon def seen liggéey ñu def leen lu bon loolu kooku koo ko ñaawluwul tey ñaar fukki at juróom-ñaar ci ren mus ñu ci wax musuñu ci wax du fàttali complètement te bët bu set ñu fàttaliku ne alkaati bi kat di woon na ci diw Bassirou Faye bët bu set ñu fàttaliku ne Mohamed ana Mouhamed Bougaleb ma nga ca prison kaso ba mi ngi def vingt ans de travaux forcés ana waa Mbàkke yi doon def opération de rafle kenn ki fàtte ko jël benn xale kenn ki di rafle dugal ko ci maal bi mu génn àddina ñoom ñëpp ku ci ne yaa ngi dix ans de travaux forcés chaque ju àddee ñu fàttali ko mais tey alkaati buñ ko faagaagalee rey ko ñu ne yoonu kenn new ci doo gis benn défenseur des droits de l'homme bu ci wax wala njëkkati ci baat doo gis benn presse na tey exemple patent ngeen doon ngeen toog wax ci ba mu toogee mais tey gis nañ émission yi à travers les télévisions Sen TV eh, RFM TFM ku ci wax kenn dañ ne pataala loolu di tax lan moo waral loolu nga ñun benn duñ doomu aadama la ñun Sénégalais ay sénégalais lañu fii lañu juddoo fii la ñu màggee dañoo tànn métier bi ñu bëgg muy alkaati don ko pour aar doomu aadama yi li ñu gën a may courage encore ci loolu mooy taxaw naa sëñ Abdou Aziz Dabakh Madi radiyallahu taala anhu yàlla yàlla yokk leeram nitu yàlla ku baax ne su ma newoon xale te new ma ci lii ma nekk métier may tànn mooy alkaati ñu ne ko yeneen nag ñu waxuma yeneen de bii laa wax parce que bii mooy métier bi yàlla gën a tànn parce que mission yi mu jox euh, malaayka yi ñu wàcc biir suuf du ko def mission boobu nga def parce que tey man sëriñ bi su ma nelawee ba ba yeewu yéen a tax yàlla may aar bu ma demee jàkka ja man la ku dem église moom la bu dëkk bi amee jàmm yenn yéenay jël seen bakkan bi lu la def ko ci donc jàpp leen métier bi xam leen ne métier bu yàlla fonk la mm-hmm. fonk leen ko mm-hmm. waaw. ñu ma fàttali ne rek yow yaay ñaareelu nit bu ma waxtaanal ci événement bi ndax ci dalal euh, lieutenant mm-hmm. mu indi version ci xew-xew baak ni mu demee euh, tey nag ngir gën a marqué waat rek événement boobu amoon 16 février 16 euh, février doon barki Dembo Ndiaye moo tax ñu joxaat la ci kàddu bu ko defee naa am ñu xam ko bu ko defee it mu doon loo xam ni histoire lay doon ndax toujours dafay am njariñ alors li ngay wax sànq yëpp nag dama gis ni am na tey bët boo xam ni mën naa ne bëtu safaan la bu nuy xoolee takk der loola kañ la tàmbali ndax noonu la mës a demee wala am na lu mës a xew loo xam ni moo yàq xëy na diggante ñenn ci askan wi ak takk der yi waaw balaa maa yegg euh, ci loolu ma euh, rendre hommage Mbaye Sadio Diop. Mhm. Euh, lieutenant Mbaye Sadio Diop mi ngi Congo actuellement en mission. ci waaw mi ngi mission ONU. di nit ku waaw mhm. vraiment ku baax. nit ku baax ku yaru am teggin. koo xam ni franchement xale la mu opté pour la police te di ci def liggéey boo xam ni liggéey bu am la. Mhm. bon léegi boo gisee tey jii tey alkaati muy métier bu jafe muy métier bu metti mu nekk loo xam ne tey jii tey foo dem. boo yëkkatee baaram sax ñu ne amoo ci droit ñu lay attaqué di la saaga di la lu ne mais lu ko waral yomb na waaw soxna si soo nekkee sa biir kër. Mhm. nekk ak sa soxna. ah nga war ko ne ko fii nga yem wala li nga yem nga bàyyi ko muy muy def liggéeyam correctement nga xëy suba doole ja nga ko joxoon ci raay gaak yooyu ngeen summi ko sànni ci bedd bi mais bu boobaa kan moo koy wegati loolu moo am donc ñun dañu toog ba 1987. 13 o 14 avril 87 ñu xëy ne ñu de suspendre nañu dàq nañu mais lan moo xew xamuñu sunu sunu mbubu kirlaay sànni ci mbedd mi ñun ñu doon xool ba tu xam ne bu ñu bëggee def faagaagal wala ñu def lu bon gis ñu daw wala ñeme ñemeetuñu ñem wu ñu yëngatu ñeme muy dawalkat oto beeg ñëpp ci yem ci mais ñëpp wëlbatiku nag war ñu di ñu saaga ñu ni ci di ñu def lu ne di ñu wax lu ne donc. tey ñooñu bu ñu toogee ba am ñenn ci ñoom ñu jël leen sànni ci mbedd mi dàq leen définitivement ñu toog juróom-ñaari at. yoo xam ne ñu leen rajee. waa rajee yëngatu wuñ ci ñu dellu si mais kan moo ñuy respecté te doomu aadama bi ba léegi xamul lan moo waral ñu rajee ñu dañuy wax rek ñoo tooñ ñoo tooñ ci naka te damay wax ni ñun tooñ ñu kenn de suñu liggéey lañ doon def ki tooñ kay mooy ki fi newoon muy Abdou Diouf dàquñu te dàq bi dañ ko ko sant nit ñi dañ wax ku ko sant man da ko FMI banque mondiale ñoom ñoo ne wàññi leen fonctionnaire yi balaa ñu indi ndimbal di leen dimbali ci yenn yi parce que fonctionnaire yi bëri nañu mu commencé départ volontaire gars yi dem ba amatul kuy dem mu ni des na ba nga bu mille quelque ñu bëgg a jël suñu mbokk douanier yi la ci lañ bëggoon dem ñooñu na leen nag bu ngeen ko defee ñun lañ doon participer pour budget bi doon du ko def ñu deltu ginnaaw kone mi fi nekkoon na ko bàyyi ma jël les choses en main daa xam na daan di dàqe benn bandi bu mag moo fi noonu ku ñuy wax Baba Ndiaye da doon dem ci bijoutier yi da doon attaqué ak sa bande yore armée di nangu seen kii di def lu ne sûreté urbaine yore plainte dul jeex du xaaj ba ñu koy wër di ko wor ba jàpp ko quarante cinq jours yóbbu ko sûreté urbaine lu ko defeere ko mu dem kaso ba def fa fukki ak juróom gaañu quatre vingt deux laa la wax de. Mhm. ba mu gaañoo ñu ne alkaati ko rey. ñu woo benn médecin mu xool ko déedéet dafa feebar xol bi moo bàyyi. mort naturel. waaw waaw mort naturel. malgré ñu àtte leen en quatre vingt atte leen mu def un non-lieu bàyyi leen 87 bi affaire boobu amee dictat bi am kone ñu ni waat justice bi na ko ñu delluwaat affaire boobu. ñu rouvrir ñu ubbi waat dossier ba. waat nañ ko indiwaat. booloo tax waa commissaire. ci ban prétexte. ci ban prétexte tout simplement que ni euh, dañu bëgg rek pour que nit ñi yëngatu c'est un piège que nous avons tendu. Ah, njabootu njabootu kooku ñoo wax nañu ubbi waat dossier bi wala naka la demee woon. wala ñoom autorité yi ñoo jël rek ñoom seen décision bopp autorité bi cela veut dire que ni collègue moo bàyyil ma jël affaire bi en mai. d'accord affaire bi en bàyyil ma naa xam fu may jaar. ba mu demee lu mu wax dafa dañu santaan justice bi ñu delloo si dossier 82 qui était classé sans suite bañ ko delloo si alors euh, interpellé ñi nga xam ni euh, jugé woon neen ba jox leen non-lieu mooy enquêteurs yi ak ñu interpellé woon alors pour dem leen àtte leen alors ci la comme élément commissariat central bu Dakar dox. ne dañ ñuy demande seen libération ak bu Diourbel ak waa Thiès quelques éléments du génie ñoom donc ñoo marche mais ba ñuy dàq ñëpp la ñu boole dàq six mille six cent soixante cinq policiers tout corps confondu muy lan mu di ñun ñoo am nañ fu ñu nekk ñu téye ñu ay weer dañu fay nag dañu doon fey li ñu toog yëpp ñu ngi doon fay. Hmm. chaque weer nga dem fayu mais ba ñu demee ba nga xam def la ñu ni def ba pare def seen enquête ba dàq ñu ni dàq wootu woolu woo ay commissaire euh, Abdourahmane Dia ma nga ca àllaaxira moom la euh, Abdou Diouf na ne woon pour muy convoqué commissaire yi naan leen euh, bref sangam yéen a fa ne woon ñu doon mën a jox leen ay tur ak ainsi de suite ba ñu yeggee mille et quelque mille deux cent soixante quatorze gàpp boobu alors ñu ne nag léegi c' est bon y' pas de problème. li ci des ñu leen. waaw jëlaat bu doy soxna si. parce que euh, weer xam nga bu tabaski jotee. Mhm. avant bu ne weer nangam la ñuy tabaski par exemple tey ñu sob au mois de février ñu ne mhm. mars la ñuy tabaski. Mhm. xam nga avance tabaski yaa ngi ko jot fin février. fin février waaw. waaw fin février boobu nga ko war a jotee. noonu la ñu defee ak dàq bi boo demee fay sa solde jot sa avance xam ne dàquñu la soo ko boo ko jotul xam ne bokk nga ci yéen dàq. ah bon. voilà noonu lañ ko noonu la ñu dàq dàq bu ñaaw man maa ngi jotee ak Kaolack bi dama ñëw di fayu ci dem ci buntu banque ba société générale des banques laa ne woon ma ñëw fekk xale eh, sama collègue yi groupe oo foofu man leen waaw lu xew mbaa jàmm la tontuwuñ ma ma continuer def sama chèque fayu génn ñu woowaat ma ne ma taxaw mu ni fayu nga man ah fayu naa kay ñu ni kon te jëlaat na la man jëlaat na mooy lan ñu expliquer ma noonu la situation bi day donc ñu taxawal foofu ñëpp dàq na leen hmm? waaw mais loolu lu gën a ñaaw loolu mu am am ñu xaru ci ñoom am ñoo xam ñàkk seen bakkan am ñoo xam ne ay soxna excuse jigéen nga ñoo xam dañoo ñëw seen jëkkër froidement ak seen xool ko mu xool ko fii dara newu fa may ma sambaat ma dem du doy waar ñu noonu lu metti te defuñu waxuñu waaw pour dire que injustice la moment boobu ñu ñuy def loolu armée sénégalaise ñu jógoon mission di réclamer seen droit baar nañu autoroute bi ñëpp di gis mais kenn sanctionné wu leen ndax lan loolu donc c' est un piège on ko monté donc tey ñooñu nga wëlbatu ko summi seen bu mu kiirlaay sànni leen ci àll bi ne leen tekk wu ñu wegatu waaw kenn wegatu leen ngay dox ci mbedd bi ñu woo la ba nga wuyu nga ges ñu saaga la di la mais boo hmm? dellu see boo ah oui man de dama lay wax carrément du ma nëbbuutu kaw laa nekkoon ñëpp xam nañ ko Cheikhna Keita je marchais euh, je faisais mon travail correctement j'étais rigoureux dans la dans le lois et les textes y a pas de problème mais korok dama ne korok laa wax. ba ñu dàqee nit damay dox ci mbedd ñu woo ma ma ges ñu saaga ma. yow mii. waaw saaga ndey na ma boo waxee ma fekk la foofu man ma daal di sëgg sama sëgg dem waaw damay sëgg rek dem parce que. ah waaw <laughs> nooy def neneen boo ko defee tey la sa bakkan su ma demee ñu def ma loo xam ne du du noonu. dëgg loolu mooy problème ma wax la beneen affaire aussi. Hmm. kon nag bu ñu reprendre en 87. Adama Diakhaté moom lañ nomoon commissaire central bu Kaolack. Mm. ba ñu ñëwee gouverneur ba mu ñuy installé xam nga wax du mu wax. bu mm. ko installé. Mm. yéen euh, am leen jom nag yéen. parce que nekku leen fu dul mbuxum ak def lu nangam nangam wax gën a ñaaw fu mu gën a ñaawee la ko wax. jàpp ah, waaw la ko waxee na ko day nangam nangam man ma ñëw ñu ne ñu ne ma chef de brigade moo woo samay éléments yi ma nekkaloon dugg yóbbu leen ci ruq neen la ñoom laa bëgg ci yéen. Mm. fulla ak fayda def leen seen liggéey correctement bu leen kenn def loo xam ne du yoon bu leen nag rancunier ku def newul coon teg leen coon ku newul ku ngeen mën a avertir avertir ko mais xam nga loo mujjee. Mm. transporteurs yi ñoo dem réunir gis gouverneur ci côté bi ne euh, waa jooju daal def na lu ne pour que mu nangam nangam du ñu dimbali moom liggéey bi nangam dugg mais fii station laa waroon xam lu ñu wax. Mm. à lañ ma taqalee. ñu affecté ma sur Louga événement 89 fi Louga la ma fekk. dama xëy rek jox ma décision dama demal ma ne waa ma lu ma def ñu ñu sans explication lettre jiitu ma ci commissaire ba xam nga lu ma fa jiitu. Hmm. ñu ne ma ñu ne ko nañ ma affecté ci àll bi parce que élément boo xam bu doy waar la. ci yoo xam ñoom ñu seen atte seen parce que dañu faut ñu dox allégation ci li ñu waxoon pour ñu jëlee ma ñu jëlee ma foofu. kaw waaw ñooña ca kaw lak luñ la doon luñ la doon ŋàññee. mais lu ñu waroon ŋàññee moo di parce que tout simplement rigueur bi ma def ñem amatul arrangement amatul wax ku newul ci yoon teg la ci yoon parce que gouverneur moo ñu ko sant. bàyyi leen seen affaire ñàkk fayda yooyu. alors ci biir loolu def ñoom ñu bëgg ñu ñu dugalaat ci ci ci loolu ñu bañ loolu lax ñu ñu ñu monté ko boobu affecté ma mais yàlla mi atte daf na atte bu baax a baax ba ma yeggee Sadio Kital laa fa fekk mu doon commissaire ba mu recevoir ma xamal ma. ma de lii jiitu na la fii lii ak lii man ah, alhamdulilah fekk benn chef de brigade dafa absenté une semaine lañ ko may permission. Mhm. mu ne ma tu prends la brigade en attendant. cinq jours après mu woote mu woote benn rassemblement génn ma ne ma yow loo def jote commissaire boobu ma ne ko dara ah non c'est pas possible. man yow depuis que tu es venu je vois un en toi un chef de brigade exemplaire moi je te maintiens. atta yàlla ak noonu. atu yàlla ak noonu donc tey jii tey difficulté bi xale yi am yëpp loolu la. kon yow da nga jàpp ne foofa ca radiation ba. la ñàkk weg gi tàmbale. ma mais agression musul am Sénégal ca la tàmbale. agression musul am Sénégal. ah oui fa la tàmbale agression. agression yii di am ci mbedd mi tey. ma ni musul am ba 87 biñ ci dàqee ci la agression judd lépp loo gis ci la judd ci la ndax booba policier amatul woon ku ne lu la neex def policier amuloon moo doon monté. te attention di nga tuuma gendarmerie mm-hmm. mais rôle yu bokkuñu cela veut dire le le policier est formé exclusivement pour la sécurité des personnes et des biens la gendarmerie nag il vient dañu ñëw appoint à la police mm-hmm. dans certains secteurs où il n'y a pas de police mais il y a pas de la gendarmerie ils viennent en appoint bokkuñu la permanence c'est les policiers benn commissariat du les brigades de gendarmerie à partir sont fermées donc il y loolu ci waa loolu il faut le dire. Mm. donc ñoom après la ñu constaté Abdou Diouf ci waxam constaté na ko lu mu constaté mooy lu mu njëkk wax wax mooy. pourquoi la BMS a repris une semaine après la brigade mooy de sûreté yi joxe renseignement yi mais dafa toog une semaine xamul luy xew Sénégal. mu waa tiit ne gars mais où sont les informations ñu ne ko ah mais c'est toi tu as attaqué les policiers mu ne ah bon ce sont eux qui m'ont donné c'est pourquoi la waaw pour que moom mu mën a gouverner ce pays parce que je le dis et je le répète aucun chef d'État ne peut gouverner un pays si si il soit te te te renseignement. Mm-hmm. la preuve en 1962 parce que ñun dañoo yàgg a faagagal 62 euh, Mamadou Dia Senghor bu ñu jàppante Valdiodio Ndiaye ki était ministre de l'intérieur joxe instruction parce que dañu doon bëgg a wote motion de destitution du gouvernement de Dia mu joxe instruction ne policiers yi bu kenn benn député accéder à l'assemblée waaw. moom à Lamine Gueye jëm fi mu dëkk bu national de Gaulle mooy maison des avocats foofu mu doon këram mu waat fa député woote fa euh, fa la wootee euh, dét euh, dindim le gouvernement de Dia. Mhm. nation de censure ba a eu le dessus mais daf ñu xeex. la police sénégalaise était syndiquée ñu bëri ku ñu wax ko jiit da nga koy da nga naan déedéet. Mhm. en 66 dañu changé statut bi ñu hérité woon du colon ki ñu donnait tous les droits pour amener le statut de 66 Ousmane moo ko def directeur général de la sécurité nationale ancien procureur euh, dindil ñu tous les droits militariser la police donc faagaagal yooyu foofu lu tàmbalee ñoom Senghor a voulu même radier la police mais il a été dissuadé par le général de Gaulle nee na ko boo ko defee dàq nga jaay waaye ci ngay bopp parce que dootu am renseignement yu gouverner donc police moo metti noonu la demee et que dans ce pays là dans dans toute l'Afrique et le monde il y a que la police sénégalaise qui n'a pas de syndicat. Hmm. maa maa la wax li lu wax kay lu leen. feneen foo dem police syndicale la lu leen naqadi ñu mën koo ñaxtu. Mm, mm, mm, mais c' est civil. sañ dem grève ak lépp. c' est un corps civil c' est pas un corps militaire. d' accord nous ont militarisés en soixante six parce que Senghor l'a voulu comme ça pour que ñun du ñu amati euh, gëdd bi ñu war a am. pour maîtriser leen daal. maîtriser ñu tey dañuy tooñ mais doo ñemee wax. tey au moins y' a un peu d'ouverture tey sax euh, on a un porte-parole on a des yi nga xam ne des commissaires yi on indi conférence de presse di expliquer di wax mais lépp les toutes les attaques c'est la police ils n'ont pas droit mais qu'est-ce droit de faire man ci événement Sonko bi am na benn rajo ma interpellé ne ma pourquoi policier di sànnante xeer ak gars yi ma ne ko waaw c'est normal mu ne ma pourquoi c'est normal ma ne ko fetal gi ma yore man mhm. état jox ma ko muy sama kiirlaay mhm. tey bu ma nit wëree wala ay noonu ma ndombo ñoree paaka ak gaas yi. ak mm-hmm. jet mm-hmm. état loi bi nee na aw ma droit jël fetal googu parce que c' est pas proportionnel. arme yemuñu arme yoruñu. Mm-hmm. donc lan mooy mujjee loolu daw ma buñ ma jàppee rey ma. loolu mooy problème bi. gis nañu élément bi nga xam ne dañ koo xaañ bi rek mu mu mu daanu. bëri euh, tiit. Euh, euh, te tey gis nañu mu mel ni genre benn chaîne saboté moo ci topp. gars yi di ko def ay challenge TikTok xale yi mag ñi. muy daal loo xam ni vraiment day xaw a wàccee tuuti dayoo policier. lan nga yaakaar ne tey moom la ñu war a def justement pour changer gis-gis boobu ak doxalin boobu ndax loola day jëmbat ci xale yi ñàkk a policier loolu moom. lu xel gàtt gàtt loolu c'est pour donner encore la force aux policiers wan neen ni yenn suñu kiirlaay yenn ñuy aar te kan moo war a jox doole boobu mooy le président de la république beneen bi moo de il faut que aussi euh, euh, au sein de la de de des tribunaux vraiment bu kenn demee offensé mm. ou outrager un policier ñu def ci sanction bi war pour ma xam ne loolu c'est pas normal parce que bu quand boo solee sa tenue nga sol ko kan ngay représenter la première institution muy le président de la ci lan ngay assurer l'article dix neuf et vingt du code de procédure ci hmm. lan ngay assurer sur su sur les instituts de l'autorité légitime qui vous instruit de faire ou de ne pas faire mais yow ngay def ci liggéey di aar doomu aadama yi hmm. ci biir aar boobu yow amu aar woo parce que euh, dama la jox benn exemple foofu moo fekkoon di ma interview bi hmm. am na waa élément chef brigade de recherche bu ginnaaw raay ñëwoon foofu di arrêté benn euh, euh, benn charretier bu xam ne c'est un grand dealer vendeur de yamba. biñ ko mais gars yi attaqué bi ñu leen ak seen i jaas ak seen paaka de maa ngi toog foofu mhm. ci mbaar bi. gilet bi muy an muy génn armée bi dama daw j'étais mais dama daw ba jàpp ci kii bi dafa tiit ma présenté wu ne ko parce que tu risques d'aller en prison mais doyen lu ñuy def ma ne ko seen oto mu ngi ko gaar ci ginnaaw ci fan ma leen bàyyi leen ko vous déjà mis les mais laissez-le partir. bàyyi leen ko ñu daw dem jël si oto ñibbi. Hmm? ci la ñu waaw ci la informé autorité bi ci la dig ñëwee foofu def ko une opération extraordinaire mais dama lay wax ne tey jii qu'est-ce qu'il faut faire en France boo yëkkatee paaka jëm ci alkaati mu dóor la bal boo yoree jaasi mu dóor la bal boo yoree yàq mu dóor la bal parce que on a élargi la légitime défense il faut que ñu élargir au Sénégal la légitime défense pour permettre aux gens hmm. vraiment alkaati bi mën aar ñi xam ne c'est des jeunes citoyens tey le cas Mouhamed Bougaleb on dirait qu'il a tiré Mais Mohamed Bougaï était ceinturé par les étudiants, armés de coucou et de gourdins. Et pourtant, am na étudiants yu ko disculpé mais teewul ma il purge vingt ans de travail forcé soit disant qu'il a tiré sur Bassirou Faye mais bu fekkoon am na mais c'est légitime si on avait élargi la de défense parce que loolu la nit ki mënoo tëb yore nekk junni nit benn nit nga ni damay daw te daw bi mënoo boo mën daw doo am na ñu la dàq doo ci biir bu la jàppee dafa la loo xam ne gaa yi ñàkk sa bakkan. Saint-Louis tam ci ah. euh, lu mel noonu la ñu la ñu décrire comme situation. man je félicite le lieutenant qui était comme le chef le responsable de la sécurité parce que nëbbuwul wax na. Hmm. mes hommes ont été menacés j'ai tiré et c'est normal mais des milliers d'étudiants armée de couteaux et gourdins de vingt cinq gendarmes ñu attaqué leen mais bu xooloon ñu rey leen mais rey ñu wax nañu dëgg état bi moo war a jël ses responsabilités waaw et que nit ñi aussi de wax les défenseurs des droits de l'homme wax lii dëgg cela veut dire bu ñu nekk fii rek di wax ci pour les civils oui c'est pas normal c'est bien lan moo normal akum normal. waaw balaa ngeen di nekk policier nag de ay nit ngeen. te ci ñun ngeen bokk. le 23 juin 2011. Mhm. Mamadou Diop quand il a fait de la vie ku ñu attaqué ku ñu accusé woon du àndoon l'ancien commissaire central de Dakar ne moom il est à l'origine de ça or c'est tout le contraire moi qui vous parle le 23 juin 2011 j'étais là-bas mm-hmm. j'étais parti d'un moment pour manifester mais pour écouter les gens mm-hmm. pour me renseigner mais Mamadou Diop après la prière de Tisbaar moom moo wax ni ci gémmiñam allons faire le djihad pour déloger Abdoulaye Wade est-ce que Harouna Sine avait laissé s'il n'avait pas donné instruction qu'on disperse la foule ñoom est-ce que bu ñu remonté woon vers le palais ba yegg par exemple tey jii est-ce que les gendarmes qui ont qui qui assurent la sécurité du président se laisser faire plusieurs centaines de ah, morts. kon romb foofu. voilà Mamadou Diop c'est en courant qu'il trébuché. ñu ko toppoon njëkk ci koom il a eu les côtes cassées yàlla ko yàlla yërëm jéggal ko. mais nag comme euh, kii euh, monsieur Keita nag. gis nañu ci événement yi weesu. Euh, ci couvre-feu bi ci ci ci première étape couvre-feu bi ak sax keroog ci li xewoon kër Sonko oto boo xam ni ni muy dawee da lay wóor ne kii ci nit ñi la jëm am na ci koo xam ne image ba tey mi ngi circuler. kooka tuutee des oto bi jaar ci kawam. te bu boobaa itam du neex euh, dindi ne loola moo doon jubluwaay bi est-ce que tamit yenn saa yi policiers yi duñ demee excès. non non y' a pas d' excès. il faut mm. dama ni kan mooy toor kan ki ki a eu man je ne parle pas de viol sama yoon newu ci c'est pas mon affaire. non waxuma ci Sonko bi de dama ne image di daw. Euh, man dugguma ci affaire en l'esprit waaw damay dellusi ci loolu. c'est-à-dire boo boo jéem a mettre à l'écart mm-hmm, dama ne. Mm-hmm. qui a fait l'appel à l'insurrection qui a fait appel au trouble à l'ordre public. Venez, venez m'assurer, assurer ma sécurité. Venez, et des gens qui ne sont pas assermentés. kii fi nekk jàmmarloo la xam xamul jàmm il il amat les populations les jeunes qui descendent dans la rue empêche les gens de de de vivre leur quiétude occuper la voie publique kenn du dem ñu sànni ay xeer def na di yàq oto jàmm mais quand même madame nañu xoolaat affaire yi nu mu demee. d'accord ce véhicule qui circulait et qu'on a dit moi j'ai bien vu l'image. Mm -hmm. euh, cette personne qui soi-disant qui allait le heurter mais pourquoi mais du heurter wu ko. ci bon qu'est-ce qui allez lu. dañu sànni xeer sànni xeer ah. oto bi ah. reculer reculer ah. reculer ba mu yàgg. waaw daal di foncer ci seen kaw. waaw mais parce que on m'a déggoo man la on m'a posé la question de savoir ne. Mm-hmm. pourquoi alkaati yi sànnante xeer ak ñeneen ñi. mais parce que dañu leen waroon dombo. te mënuñu utiliser seen arme. tali gaz lacrymogène la ñoom est-ce que jeexul. d'accord mais du ñuy delloo xeet yi pour que gars yi aussi bu ñu demee ñu mën a génn. d'accord mais donc par conséquent le véhicule là qui a démarré. Mm-hmm. Euh, véhicule la boo xam dafa couvrir les éléments. qui sont derrière ba muy dem. effectivement foncé na bi mu foncé pour que nit ñi di. ñeneen ñi mun a oh, jàll leer na kooku mm-hmm. kooku taxawoon ne soi-disant il a fait ce geste là. Mm-hmm. lu mu fa wuti woon en réalité lan la fa wuti woon mais voilà donc les policiers n'abusent pas mm. ku ci wu tey jii dama ne la. ku ci def foot mhm. l'autorité dañ lay punir. ku ci def lu dul yoon ñu teg la ci yoon. Mhm. donc ñoom aussi bu leen defee lu dul yoon aussi nañ leen teg ci yoon xeer boobu daal ci bopp alkaati bi kër ga mu jóge mhm. mais waroon ñu une enquête pour xam kan la et qui a lancé ça. parce que policier boobu soloon casque tey. est que amul ay séquelles sax. Ah, dana am séquelles. dama wax rek gën génn àddina donc tey jii ka def anamu. mu l'a fait d'une fa façon sia euh, euh, il l'a daf ko def pour éliminer donc ñu ngi donc alkaati yi ñu duñ ay duñu ay euh, nit ñoo xam ni dañoo ñëw pour ne dañuy rey nit wala dañuy def la nangam ñun ñu soog ay sénégalais lañu duñu opté pour métier bi comme pijee nekk opté pour commerçant nekk mm. pour lii mu nekk pour lee donc tey jii tey loolu dañu war a sóoraale loolu parce que boo génnee sa dëkk bii gàmb gu sol jaam bi gii rek boo demee alkaati bu taxaw ci mbedd mi de police stop la ñu bind te yow boo ñëwee ak sa oto ñee moo fa jàll soo doxee sànq il faut nga taxaw présenté wu mais a jox cër ñooñu te ñëw nga ñi nga nekk ñu di la wax tey jii ne Afrique ba mu jot bien que on a on a eu de suñu droit ko dindi nous sommes la meilleure police africaine en 87 avant radiation bi nous étions la première police africaine et cinquième mondiale même devant la France mais donc yow police bu xale ñi moom nga am ko nit ñuy réfléchir. di am lu ñuy jiital d'abord bu ñuy dem liggéey xam lan lañ lan ñu représenté mais kon boog dañuy war a jox cër bu war. Mhm. tey nag état bi moo am responsabilité assurer la sécurité des policier parce que tey jii tey bàyyi bàyyi bi ñu leen bàyyi def lu leen neex ci alkaati di wax lu leen neex di leen wax lu leen traité de tous les noms d'oiseaux tey foo dem rassemblement boo dem tey la couvre-feu kii la mhm. mais kan moo jël décision bi du président de la République mhm. mais duñ ko critiquer alkaati la ñu saaga. parce que soi-disant ñoom dañu war a noppi je croise la bàyyi def lu neex soo ci waxee nit ki dégagé sax mu pourquoi. Mm-hmm. dañoo ordre rek solo solo masque mu ni pourquoi pourquoi a nga may laal pourquoi a nga may touché on est de tous les autres oiseaux boo fa jógee ñu waaye néewuñu fu lu seen poche lañ fi nekkee. dinañ ci ñëw ah, ah. dinañ ci ñëw dinañ ah. ci ñëw fàttali jusque ni Demb ak Tay ngeen di teewlu ci réew mi FM ñuy waxtaanee événement yi amoon 16 février 1994 euh, manifestation opposition ba ñu faatoon ci juróom-benn euh, policier ñuy dalal Cheikhouna Keita brigadier chef des gardiens de la paix à la retraite jiite itam mouvement national des policiers à la retraite foofa laa doon bëgg a ñëw sëñ bi Keita. ndax mm-hmm. itam nag wolof danaan euh, bukki bu yabee gaynde ca doxin wala la ma mm-hmm. doon bëgg a wax yaa koy junj léegi. Mhm. ñàkk a wekk gi ñu ñàkk a wekk takk der yi tey ba ñëpp teg ci bët. donte démb la du tey yaa ngi koy wax ca radiation ba la tàmbalee. waaye mhm. itam am na tey doxin woo xam ne ñu ngi koy gàll ci ndoddu takk der yi te mu am njeexital ci ni leen askan wi di xoolee mooy ci tali bi. yeneen ak yeneen i bërëb yoo xam ne ñoo fa ne dañu ne ger ga dafa taqarnaase lool waaye gi ci gën fës mooy tali bi ndax ku ko ci mësta teg bët yaakaar naa ne bariwut mooy policier bu jàpp ab chauffeur ñu jël xaalis 1000 francs wala 2000 dugal ci permi ba ñëw jox ko mu rocci xaalis bi def ca poosam jël permi ba delloo la nga dem yaa xam loo mën a def loola moom lu ñu bari teg seen bët la man mi di wax ak yow bokk naa ci loola nag est-ce que bokkul itam ci li tax tey wax dëgg yàlla ñu xeeb leen xeeb takk der yi lool ci ni ñuy doxee. waaw madame yow loolu nga wax noonu vraiment euh, lu ñuy ñaawlu la mais dama la bëgg wax bu ñu bëggee jël ñëpp am bu dugal ci benn saak. waaw ñëpp yemuñu moom. bu ñëpp yemoon am ñu gedd seen cër. neewuma ñëpp la waaye ñenn laa wax. xam nga nag boobaa boobaa ñi xëy na ñoo jël ñëpp rek ëmb ci biir ñàkk a wekk ñu bari ci policiers yi wala ñëpp. mais du ñëpp a koy def waaw. waaw maa ngi ñëw xam nga li ma bëgg moo di. bu ne alkaati bi dafa tilim. setal ñenn ñi. mais day doy waar. Mhm. neew ma nag ne amul déedéet du ma ko wax mukk caat am na mais bu ne tey jii ñooñoo vraiment seen affaire tey nangam nangam ma xool dëkk bi tey ni mu demee di citoyen sénégalais. Mhm. ma ne xëy na bu amee alkaati mooy jël la muy jël moo gën a néew ci ñeneen ñi li ñuy jël foofu duñ ko wax. ñeneen ñan. bëri na déglu maa ngi ñëw tey ji tey accident yi circulation yi bëri yëpp tey boo ko xoolee di dawal sa oto li ko occasionné mooy camion yi paan ci virage yi ak yooyu. Mhm. camion yooyu ñaataat la ñam bu ci gën a néew at am nga au moins juróom fukki at. Mhm. waaw oto nan la mën a am juróom fukki at di am visite technique car rapide yii Senghor moo ko fi dindi woon rapide ndoon di la fi fekk dindi fi indi ñaata at ngeen fukki at yi teg na bu yeggul juróom fukki at cette place yii ñu doog a xalaat naan ñu ngi koy dindi boobu ñaata at la mais ku ci ne am na visite technique waaye nan la ñuy amee visite technique te koo ci arrêté contrôle mu jox la visite technique te du yóbbu otoom visite technique lu jaar foofu dañ ko wax. Hmm. waaw ñu dem fu ñuy morcelé fépp fu ñuy morcelé. Ah, am na ñoo xam ñoo ko si ñoo koy seq di ko def te ñaata la ñu épinglé ñoo xam ne c'est des milliards qu'on parle parce que ay cadastre leen tudd am na ñoo xam ne ñi seen bureau tey bu ñu wàcc la ñu yore seen sac ëpp de trois millions par jour am na ñoo xam ne tey jii dañ leen doome ministre deux ans ñu tabax kër goo xam ne ëpp na un milliard ci budget boo xam ni ci état bi moo ko moom doomu aadama ñoo ko moom dañ ñu wax ni La véritable corruption, c'est cette corruption-là qui a une incidence sur le budget de l'État. jox naa le benn exemple léegi quand vous êtes rigoureux on vous la combat quand vous vous taisez ñu ne defoo sa liggéey lan moo ma jëlee lu Kaolack yóbbu ma Louga la rigueur dans le travail on a épaulement ñu yóbbu ma parce que dañ ni je n'accepte plus les négociations yóbbu ma affecté ma dem Louga quand je deviens conciliant ñu ne je suis mais quelle est la mais alkaati bi nit la. nit la ndew raxasuma ko de mais am na ñu ko gën a def lu ñaaw foofu ci dëkk bi les plus corrompus sont là et on ab dénonce pas am na ñoo xam ne tey naa la wax nettali benn histoire 1998 bi commissariat poste post police bu Grand fu ubbee man foofu laa doon monté ñu ma détaché woon Liberté 6 may monté damay toog ba caag benn waaye waaxu ñëw nuyu ma jox ma loxo ne ma asalaamualeykum ma nuyu ko mu ne ma sëñ bi de man. Euh, kër Abdoulaye Wade laa jëm point e, dama bëggoon nga may ma paas këti téeméer jox ko moo koy def ba mat juróom-ñeenteel fukkeel bi man ne ko ay diw yaay kan mu ne kon xamoo ma nu ko dee damay def ngir yàlla nag mu ni man maay diw du ma tudd tur nag par respect mhm. mais tey waa jooju ba Wade faloo deux mille nommé nañ ko ministre il est devenu milliardaire ku amuloon looy passé à six mois de deux mille yow nga dem ba am loolu tey nan la ak yeneen cas yoo xam ne on peut le souligner ici mais nañu bàyyi alkaati waay alkaati yi c'est pas des corrompus hmm. c'est des gens yi nga xam ne bu ñu defee la rigueur lan moo indi tey contravention yi démarré six mille trois mille wàcc ou trois mille hmm. mais contravention yi vingt quatre mille la woon da démarré woon vingt quatre mille douze mille six mille trois mille mille cinq cent huit cent c'est sous la pression des transporteurs ci la ko Abdou Diouf wàññee mais luñ luñ ko wér ñoom alkaati la ñu wax am na benn euh, syndicat ma dégg ñu ni jeunes yi léegi soxlaatuñu dem ay service d'hygiène wala euh, astafurlah ay ay ay euh, pompier wala yoonu parce que foofu dara amu fa léegi bu ñuy tànn alkaati wala gendarme la ñuy tànn moom la ñuy tànn les syndicalistes des transporteurs là nañu xoolaat seen bopp bu baax parce que xam na lu bëri lu ñu moo xam buñ ñu ko waxoon tey dëkk bi tey donc tey dañu bëgg wax ni alkaati bi setaluma gars yi de setaluma leen de mais nag corruption bi corruption bii laay wax nii. am na foo xam ne c'est moo euh, daf ni fa fàng et c'est les plus corrompus c'est devenu milliardaire te kenn du leen tudd kenn du leen wax alkaat yi nag franchement parlant tey damay wax sama dëggalaax bi s'ils avaient changé le tempo di di def rigoureusement ñu dox di fay te leneen li ci gën a ne fàngaaral mooy les gestionnaires et d'impôts et domaines cadastre ak yooyu chaque trois ou six mois am na lu ñuy jot ci retour ci li ñuy taxé douanier bi am na un treizième mois pourquoi policiers ak gendarmes yi contravention de yi leen jox un franc lépp dem sur le budget de l'État ñoom ñoo koy liggéey ndax ñoom duñu nit loolu laay wax ni donc par conséquent moo di ñun de euh, damay kañ tey samay doom laay wax samay sët ñi nga xam ne ñu ngi ñoom ñu ngi ci police bi mm-hmm. nañu gën a jàpp fu dëgër parce que képp kuy def lu baax ñu dingat la mm-hmm. dingat bi na yàgg na fii parce que ñoom la ñu gis mais ñun bëggul gis gisuñu leen am na ñuy def le pire et dans d'autres corps waxuma sax ñeneen ñi mais dans d'autres corps ñu ngi def pire def loo xam ni fàngaral la kenn wax ko ñu ngi ne pat alkaati rek new ñu fi di wax loolu ma set nañu de waaye am na ñu leen gën a tilim foofu lañ tudd ñooñu leer na ah, euh, naa Keita ñu ngi lay gërëm bu baax xamoon nañu mbégte dalal euh, tey ci waxtaan wi doon ñëwaat ci xew-xewu 16 février 1994 moo lay tay tayaloon waxtaan wi foofu la ñu doon bëgg a jeexalee ndax itam ay tuuma la yoo xam ne dañu koy teg euh, ci kaw policiers yi yéen a gi rek moo doonoon jox leen yéen itam kàddu gannaaw ñi nekk en fonction xëy na mun ñu wax waaye yow mi nga xam ne yaa jiite ñi fi ne woon démb ba tey itam ngay topp actualité xëy na nga mën a gën a gindi askan wi ci yu bari yoo xam ne mën na amaana foogee nen euh, fekk demeewul nii loolu rek na jubluwaay bi ñu ngi lay gërëm bu baax euh, di itam am mbégte lool ci disponibilité bi nga xam ni saa su nekk yaa ngi koy euh, wone sunu digganteek yow heure bu nu la soxlaa fu nu la mën a soxlaa wax dëgg yàlla da ngay teew ñu lay ñaanal yàlla di la sant di la gërëm Keita bàyyi la rek nga tàggoo ci lu gàtt di leen gërëm bu baax ci invitation bi di xam nañ ne am na yeneen yu des yu ñu war a seet parce que bu waxee événement 87 am na loo xam daf ci lënt mm. te di ko fàttaliku di ko ñaanal yàlla un commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Cheikh Sadbou Ndiaye qui était DSP au moment de la radiation ñàkk bakkanam ba léegi leerul mm. di wax it di fàttaliku le commissaire Babacar Ba ci fi noonu nga xam ne bi Abdou Diouf di te créé en 81 moom moo doon enquêteur bi moo doon interpellé moom c'était euh, la machine et tout moom aussi il est il est mu disparaître te kenn xamul ba léegi nu mu deyee yenn yu bëree bëri yoo xam dañ ko war a leeral aussi mi ngi fi euh, ci alkaati yi mais teewul aussi may ñaan sama sama mbokk alkaati yi di ñaan kilifa police yi ne leen daal euh, fa ñu teg tànk noonu la di ñaanal aussi Ousmane Sy le directeur général de la police nationale vraiment mi ngi liggéey liggéey bu rëy te vraiment ñu ngi ko ci sant ak ñi ñu ko jege yaayoo di wax nag samay doom ñi nekk ci policier yi na la gën a jàpp bu wax ji tax ñu deltu ginnaaw nañu gën a fonk liggéey bi gën ko jàpp aar doomu aadama yi parce que am na ñoo xam ne bu ñu sanoon tey leen neex ñuy dóor di di sàcc di dem parce que loolu la ñu xam mm. di siif di dem jëli fi jàmm am ñoo xam ne leen defaan te bu wax naa ne engagement lañ gën jël te incha allah kenn duñ mën a tax ñu deltu ci ginnaaw mm-hmm. du ma sàmba du ma demba di wax nag considération bi nañ ko gën a yokk gën a fonk ñi alkaat yi jàppale leen bu baax parce que alkaati bu ne nekk ci ginnaaw Sénégal yi nous sommes seize millions sept cent euh, habitants donc bunu donc information yi aussi da ngay da ngay jël sa doom muy def faagaagal la jox weeru rek xëyul gontul ngoon bu jot mu jox la ñaari junni wala nga ko laaj fu mu jëlee nga muy jaay yàmbaa ci biir kër gi nga xam ko doo ko dénoncé muy def yu ñaaw doo ko dénoncé donc tey li ñuy wax ni dimbali leen alkaati yi gunge ci seen métier di joxe information joxe information taxul ñu xam ne yow mii kat yaa ko joxe te dañ lay nëbbu ci lool par mm. conséquent ñun loolu lañ leen sant di dellu sant. collaborer ni ngeen koy waxee di wax waa voilà collaborer. Mm-hmm. di wax sama disponibilité à seen bi. Mm-hmm. saa yu ñu ma soxlaa maa ngi taxaw incha a déwén yu bëri. amiin waxtaanee ko di waxtaanee événement yi ci barke Seydina Mohamed. amiin Keita merci encore une fois de plus. merci jërëjëf Keita lay gërëm mbokk yi démb la woon ci réew mi FM Fatou Thiam Ngom ne woon ci kaddu gi feggoo Jaawo Jàlloo ci machine bi mm. ñu dig leen daje dimanche incha allah leneen ak keneen ñu yendoog jàmm.